salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi démb laay fu démb bi jëlal naa ñoom ësël ñoom ñëpp a dugg léegi nag gars yi dafa am lu ma leen di wax ñoom ësël yaa ngi dégg ñoom ësël même bu nekkul sax ci dëgg dafa am gel yoo xam ne dañuy profité ci affaire bi ñoo xam ne ñoom ësël da leen a iri ci appartement bi kat leen ba pare ñuy génn di yàq seen dara parce que dañ leen a kat te joxu leen xaalis parce que gis nga gelu sénégalais yi boo leen kattee daf leen leen metti dañuy wër di leen yaroo rek yaa neen yeneen xaalis leen a parce que li nu bëgg moo yomb du nu fobeere du nu raxas du nu def cottu ndeyam bëgg di topp ay appartement booy yi bu ñu jëlee appartement yi dafa ñu jël si gel yi wax nii yëpp dinaa affiche seen tunu ndey lekk seen data yaay fi parce que kenn dawu leen xaalis bi ñu jël di ko yàqate ci ay it bet xajoon na ci seen lëfal ndey buñ ko dajale woon mën cee tekki ay doomu xaraam lanu lu nu wax ñee benn wax leen ko fukk appartement la booy yi di jël ñu dajaloo fa ñu leen di kat boo ko defee buñ leen kattee ba pare fayu ñu leen nag ñuy war naan dañ leen a ñoo gën a toj seen lëfal xale yu jigéen yi ñoom ñëpp ci leen bokk dinaa toj seen lëfal ndey ñoom ñëpp ba ci kanam incha allah